À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone ci saari safar sëñ Bamba daa def ba moo ñetti juróom bi daal ku sukk sëñ Bamba def ba lii lu mag rek ba jàkka yi jéem xanaa dina ma sukk ci saari safar li xidmatil muxtaar ci saari safar sëñ Tuuba sëñ Tuuba sëñ Tuuba julli ga mu julli woon te kay jëmoon sunu am jàmm jee Serigne Touba ñun waa Sénégal ku sopp Serigne Touba def leen nii nu màggal Serigne Touba suñu nga mu julli woon ca géej ga moo waral xewal yaa ñu yolkaan xewal yaa ñu yolkaan man sant Serigne Touba ñun waa Sénégal bu dul woon moom Serigne Touba ñu tabax ci duniya bu dul woon Serigne Touba nii magal Ahmadou Bamba mani dafa am tuuti lu ñuy wax Cheikh Abdoulahi borom jëlëg joor ndox Cheikh Abdoulahi sëñ Cheikh doomam di ko mat doomam teew fi sëñ Idaali Mbakke ànd ak waa Daaru Rahman yëpp ñëw te ku ne xam na bàyyam ak lislaam léegi waxtu waa ngi bëgg a jot dama bëgg ñu may jëwriñ sëriñ Fallu discours bi mu yor jëlee ko ci Ahmadou Mountakha magam bi baax gi war a indi kàddoom war a waxtaan ak ñun war naa am temps noo ngi koy ñaan ñëpp asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi ñaan bu yëkk sa loxo wax jërëjëf sëriñ Ba yàlla na nga dellu ki ñu bëgg a jox kàddu gi mooy yoon Abdou Diouf taxawoon ak sëriñ Saliou di jàmbaar mais Cheikh Makhtar moment bi may nekk Gabon maa ngi lay woo a ngi Amérique hmm. di taxawu Cheikh Amadou Bamba kon Serigne Touba la ne woon li faali wali xaayi wa fawzi la ana bi kawni xadimal Mustafa tatabayen daj na am na lu war a jàng nag ci bàyyi ah. màggal bu ñu gis foofu Serigne Touba defee lañ koy defee màggalu Njeewal Njeewal màggalu Ndar Ndar màggalu Konaakiri Konaakiri Grand Bassam fa lañ koy defe Touba biir Touba màggalu Sanusi sànn waaye màggalu julli géej rek laa gis defewuñ ko fa ko Sëñ Tuubaa defe ndax julli géej ci buntu géej gi rek kenn du Seexu Xadim moo dem Ndar Ndakaaru Konaakiri Grand Bassam loolu moo kenn ba ku julli Daouda Boma Banama Kajiki Fadi Bango Dakri Salalo Kulam Jao Kutuk Taal Jao Yekki Sa Yoho Masjid Jao Sinama Yalla Nga Dëgg Su Sefa Daal Fasalaam Baram Jini waaw ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf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 sant bu tedd bii nga xam ne mooy jox liggéey bu sell bii di ko nuyee mbokku lislaam yëpp te di ci jiital sëñ Ablaye Thiaw Laay mi nga xam ne suñu dëkkandoo la bu ma ko tuddee naa tuddee yëpp di ziaro di nuyu nuyu tedd sëñ Fallou Abdou Khadre suñu imam imaam boo xam ne sëñ Tuubaa moom te mu ko def bu ma ko tuddee moom itam tudd naa kilifa yi yëpp di sant jëw yi xam ne ñoo jiitu woon te indi liggéey fii di jàmbaar di bàyyi Nasir Touré di bàyyi Baaba Gueye ak Cissé Mouride ay jàmbaar dëgg la ñoo indi kuréel ba mu àgg te ñu ngi fii toujours ak man di ma jàppale. di sant kuréelu jullit géej gi yëpp bu ma ci tuddee vice président yóbbaale naa góor yëpp. di sant président sono sono sono moom itam bu ma ko tuddee tudd naa jigéen yëpp. di wax ni nag jigéen ñi ñoom mention spéciale. ndax loolu laa doon wax sànq jigéen ñu mën góor ay jàmbaar te ñu kuréel bu accès si tey li ci ëpp ñoom di leen sant bu baax di sant président di ko sant vraiment sant bu bu wér ci turu kuréel ak turu taalib yi ak administration ba ci bi nga xam ne defal nañu CRD defal nañu ñaari CRD ba liggéey bi mën a tegu ci yoon di wax chef de délégation Abdoulaye Diouf Sarr di sunu ministre et sunu maire fii di ko wax mu waxal président ne sunu xol sedd ci moom yow a sa délégation bi nga àndal yow itam ñu lay ñaanal bu baax di sant ministre d'État Mbaye Diagne moom mooy li may wax wax yu yàqu la ndax taalibe la membre la suñu jëwriñ la suñu mag la suñu xarit la ñu ngi ñun saa su ne di sant Moussa Sy moom mooy maire parcelle waaye na xam ni taalibe la dafa boole boppam ci kuréel bi bii fi la nekk ba une heure du matin fan yi jël di liggéey dem fu ne wax dëgg yàlla koy beral sant bu baax di ko bàyyi sëñ bi di sant a yi HLM Diamalaye HLM Grand Médine ñëpp Dakar Parcelles ndax bisu Dakar ñëpp bi nañu xam nañu bisu Dakar nekk ku tedd que parce que bu tedd ba décrété woon waxoon muy sëñ Saaliu Mbàkke yàlla na suñu borom doolu ay leeram te daal ci barkeem di ci profité di sant nuyu waa kër sëñ Saaliu ñoom ñëpp ñëw sëñ Madara Jaxate Cheikh Moussa Ñan Góor Jéy ñëpp Baara Dem Xaadim Silla ñëpp ñëw waaw leen sant bu baax ndax lii lépp sëñ Saliou di wax ni suñu xol seet na ci mbooloo mépp ñi ngeen taxawee seen taxawaay rafet na seen discipline rafet na waaw mbokk yi nañu ànd daal te yaatal sëñ bi Cheikh Mouhamad Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadi ah! teewal Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamad Bachir xalif général des mourides mu ñëw di fekk si am kon sëñ Xaasim yaa sëñ Moussa sëñ Ousseynou njabootu Cheikh Mouhamad Mountakha ji soxna Astu seen teewaay fii loolu la ñuy fàttali saa su nekk teewaayu waa kër Cheikh Mouhamad Bachir sëñ Mountakha di mu jigi sëñ Abdoulaye ki nga jiite yàlla suñu borom yokk ay tawfeexam moom waajuram ñëw fekki ak julli ñu leen fa fekk yëpp kon bu ñu ma yaatalee ba Cheikh Mouhamad Bachir toog te xam ngeen ni fan yii yëpp mi ngi jaay xam na ni nekk nañu kii di def réunion sëñ Mountakha fekk ñu kii kii ci wetu jàkka ji kon lu ñor sëñ bi la tànn kii mu tànn itam al muxtaar Mokhtar mooy ku ñu tànn mu tànnal ñu ko mu ñëw jiite kuréel bi te ku nekk gis nga ni bi mu yoree liggéeyu kuréel léegi yóbbu fi ñu ko yóbbu ànd ak soxna soxna Bouma ak mboolem jëwriñ yi sëñ bi la loolu ñun ñëpp ñoo ko dundandoo kon bu sëñ bi toogee rek journaliste yi si waat ñu jox Cheikh mu yegg waaye sëñ yi docteur Niass bu kuréel jàmm ji yàgg meilleure communication liggéey bi ngeen mi ngi leen di sant ak président Adimala Sène Thiaw Bekkaay Sène bu kër Wakana Assane taxawaay ñëpp gis nañ ko ak sëñ Matar Gueye sëñ Abdoul Ahad Diakhaté moom Serigne Saliou yi ak si na de sëñ Abdoulaye Camara moom Serigne Saliou mbokk yi ñëw leen waaw alhamdulilah ñuy wax sëñ bi sëñ Bass Abdou Khadre ñëw porte parole mais alhamdulilah jërëjëf di wax rek ni maa ngi sant mbooloo mi wax dëgg yàlla taxawaay rafet na lépp rafet na waaw ñu ngi bëgg lool di sant Mbackiou Faye ah jëwri fi mu toll nii ci liggéey mag xam naa loolu tax ñëwul tool yi dafa yaatu toolu sëñ bi dafa yaatu moom daa yore toolam foofu bu mag ñun yore tool bi donte ñoo ko moom waaye li may digal kuréel ak bépp mbokku taal bu suba fu sëñ Mbàkke wu geesu ñu gis oh, bala la gën ah, loolu daal mooy ndigal waaw di wax nag la ma doon wax rek masalikul jinaan fay la mm. béy bu ñu sëñ Touba defal ñun kuréel yi waaw ndax kuy tabax juma xanaa pour julli la ñun lu ñuy màggal du julli kon nag cadeau bi sëñ Touba ñun la ko kon nag loolu laa amoon lu ma leen di wax den wax ne di ñaar taalibe yi sama mbokk daal bi ci jël sama bopp maa ngi ci jël sama bopp nañu góorgóorlu ci ndigalu sëñ bi nañu fexe góorgóorlu topp ndigalu sëñ bi te bàyyi ay tere góorgóorlu fonk suñu diine loolu daal buñ ko defee lépp nga ci biir incha allah waaw di sant nag mbokk tey ñaan suñu borom defal ñu nawet bu barkeel waaw ñaan tamit suñu borom def jàmm ci àdduna ndax àdduna bi soxla na jàmm te ñaan mën na lépp sëñ Tuubaa mën na lépp ñaan ko ci barke sëñ Tuubaa allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf léegi nag dañoo Cheikh Makhtar Diouf le président du kuréel léegi nag dañoo bëgg ñëpp toog vérifier que Monsieur Fay est arrivé Je vais l'appeler tout de suite, Monsieur Ba. Là, je meurs de chaleur, là D'accord, tout de suite. Monsieur Ba, bonjour. Monsieur Fay. Alors, euh, je viens de proposer le meilleur des verres pour maintenir la fraîcheur dans ton bureau. Et en plus, il est excellent pour l'économie de la consommation électrique de ton climatiseur. Parfait. Cependant, celui-là,